salaamaaleykum euh, Sénégal salam salaamaaleykum tout le monde maa ngi ziar bu baax a baax di présenté wu man Karim Gueye ñu gën xam ci Karim Xurum membre du mouvement Nittu Dëgg nekk rappeur activiste. Ah, bon tey dama doon def live mais live bi je vois que depuis deux semaines su may def live dañ koy clipté di ko dagg day may sabotage mais anyway de façon ñun le combat continue te lu ñu am ci moyen dañ koy utiliser. vite fait pour ne pas goudel, tey li tax ma def vidéo bi pour expliquer Sénégalais yi ni képp ku jot euh, vidéo bi na ko partagé pour wax leen ni du Sénégal yëpp kenn engagé tu parce que. Euh, malheureusement dafa am ay subventions yo xamné état du Sénégal daf koy joxé depuis 3 ans 4 ans 5 ans yo xamné ne wax képp ko am projet boko bindé ministère dafa am budget bo xamné ne dafay dem ci subvention yo xamné ñom néna ñoko mom dëgg la mais je pense que priorité dafa am légui nak projet yi boo ko dañ lay label dañ lay dañ lay lebal dañ lay jox 2 millions bu ñu label bu ñu lay joxee 2 millions nga def sa projet après ñu ne la déwén su fekkee projet bi gën na baax di nga am 4 millions léegi ñom ñëpp talatuñ dara ñi ngi sëgg ci projet yi rek talatuñu jafe-jafe bi Sénégal askan wi di dund ñu coupure ndox yi ñu euh, hôpital Dantec amul machine dialyse yu baax insuffisance rénale ñi ñaa ngi dee comme pas possible taluñu ndox mi nga xam Sénégal dafa am jafe ndox jafe-jafe ndox ñu ñoom ñu yooyu yëpp ñu ngi def ñoom ñëpp ñu ngi def ay vacances citoyennes ay 300 millions état bi këpp këpp euh, euh, rappeurs yi artistes yi ñu topp ci loolu di daw ñun nag ñun ñi nga xam ni on lance appel aux

par nañu may ay quelques sons ci studio bi muy il euh, y' a d'autres as ñoo xamné ne pare nañ euh, ñoom 1 million déjà gars yi commencé nañ pare Mati Trapam aussi néna engagé wu na aussi pour def mam ñu bëriñ paré nañ donc on lance un appel képp ku bëgg participer ci compilation bi politicien lay tudd wax pour Macky Sall jëlee fi Macky Sall parce que Macky Sall fichier électoral bi baaxul kon élection présidentielle normalement buy am tamit lan leen perte nañ ko waruñu ko am parce que day sàcc élection yi donc yooyu yëpp nekk ay mbir yoo xam dañ ci war a conscientiser masse bi parce que nit ñi jotuñu seen carte électorale position ñu tëj ci kaso bi artistes yi bàyyi yooyu yëpp topp ci ñoom di dal donc comme nag ñu ngi jël àllu réew mi di ko jox ay Gaston meng ñu koy tëgee ay lamb di jël àllu réew mi di ko jox ay ñoom Mame Goor Diazaka ñu ñàkk jom ñooñu nga xam ñi ngi jël jël jël Sénégal wan ko ginnaaw jël àllu réew mi di sucé deretu askan bi ñun les rappeurs yi nga xam nous sommes engagés bokkuñ ci ñuy corrompre dañuy def compilation tuddee ko politicien di invité ñëpp y aura ay les flammes ji Mass Black Diamond ay tant de rapports yo xam underground yo ils sont là ils sont engagés ñuy def ni képp ko bëgg a participer ci compilation financièrement ñu ngi lay laaj ngeen japp ci yeen ñëpp na. Yeen ñëpp ngeen japp ci la diaspora les mouvements mouvements activistes yi nek Sénégal nek diaspora bi da ngeen woote ci 77 810 17 810 17 45 77.